c'est un souffle économique boo xam ne vraiment dina solo dina dina gën ci mhm. suñu njiitum réew mi ngay commencé di def ay sorties xanaa forcément kon <laughs> avion ba ñu aale war war na euh, euh, dellu euh, war na ñëwaat je pense que ni ci avion bi la dugg de Ahmed yow mi ñu. yow mi ñu chargé woon. man kay lañ dégg avion bi. <laughs> yow mi ñu chargé woon avion pour mu dellu si waat am na kii laaj ndax avion bi ñëw na. internet man lañ ko dénk roppalaan gi war naa ñëw. waaw ah, ñëw xolaan bi xolaan gi moom. ña demoon nag ña umra ji woon nag. ñooñu nag seen ñëw ñoom ñëpp wóoruma ndax man dew ma seen i kër waaye lañ leen mën a wax daal mooy euh, tukki boo gis. am na retour. waaw ale boo gis am na retour dem nañ dinañ dellu si te umra yi day jeex moom. <laughs> ah dafa am dafa am àpp nag. yow su ma la waxee gi ñetti fan la di nga gëm. ah na gën a rëy. Mhm. aji màkk gi moom xam ci cinq piliers la bokk. farata mhm. su ko est-ce que xam nga ne aji gi ñetti fan la. ñetti fan bu ñu màkk weer lañ fay def waaw. waaw te ñetti fan la war a doon. ñetti fan la. ñee mhm. bëgg def umra ñaari weer. waaw ma ne taxawaayu arafaat ji. fa la fa la aj bi di tàmbalee bu ñu ne suba la tabaski mooy sànni jamra gu njëkk gi. Mhm. ñaareelu sànni jamra gi mooy suuru tabaski ñetteelu sànni jamra gi. Mhm. bu ñu tabaskee ba ci ëllëg sa la nga wër xaraam bi. mu jeex tawaaf waaw. door sa ñaari rakka maqama Ibrahim léegi naan sa samsam. léegi gars yi ne gars yi ne. ñëw oto ba set. non non léegi gars yi tënk yéen kay aji ngeen. non non non. ma waaw opération. ñi ñi umra ji moo tax na indil la ak li nga xam ne farata la umra bi umra bi umra bi du farata. dama diine laa lay alxuraan laa lay wax de. Hmm. sugu waaw umra ji ñu dem nii du farata. Hmm. déggoo ma de. nañ ñëw ci mim réew. bu aj bi jotee bu leen neexee ñu dem aji. man yaakaar naa mi neen ko umba ji tàgguwu leen lu seen yoon déet suñu yoon a ngi ci de nañu ñibbi si. dëgg am lu ñu war a réglé. dama ne. buñ ne bëreet départ dem taxawaayu Arafat ja. dëpp jaar Musdalifa forcé xeer. gënt une pierre ñëw sànni seytaane yi. dégg loolu. Mhm. jubali directement ci xaram ba. ca ëllëg sa mooy jouru tabaski. Mhm. ngeen dem dikk jouru tabaski bi sangu ba set daggee watu watu bu la neexee nga boros wala nga njàmpewu xanaa loolu màkk boo nekkee wuy ma booy njàmpewu ba uh-huh. tamit amoon na benn biir buñ la buñ la joxoon pour nga lijjantul ñu ko ah, ah dem dafa wax dafa waxoon daf ñu promettre woon que ni dina am ay appel yu nga xamante ni dina ko def ngir am lu mu leeral waaw Socé gaawal ñëw gaaw su defee nga wax ñu appel yooyu fan fan la toll umra gi du farata nañ ñëw boo yóbbee ne ñaar okkalaan gi moom normalement ñëw na. waaw ah, war na ñëw de. waaw te nag te tamit président Bassirou Diomaye Faye tamit. Mm-hmm. li ñu koy wax ci wàllum roppalaan boobu l' avion présidentiel dañ ko jënd uniquement ndax président de la république. farata mën na am mu ne premier ministre walla nangam avion bi jël ko àll na ko jël dem ci Gambie tukki ci dem ci Guinée moom premier ministre ñëw. Mm-hmm. président de la république lañ jëndal roppalaan gi. Mm-hmm. seen yooyu ñuy def nag nekk fii noonu rek pour ñu naan non ndeysaan non waa Pastef fii dañoo simple quoi oh <laughs> non dañ ndeysaan xoolal rek dafa dagg dig dafa dagg billet dugg biir Air Sénégal gayen toog président de la république <laughs> oh dara avion dañ koo jënd. dañ koy jënd de. le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye doit être dans de très bonnes ak loo xam ne tamit état la. Mm-hmm. Mm-hmm. bëgg simple simple noonu rek ba ba ba ba yow sa kaaraangeeg oto yeeg yëpp ñu ne ndeysaan non sobriété dëgg quoi xoolal sëñ bas rek ndeysaan bi muy dem barki démb ndeysaan ñetti oto kese kese kese. Euh, si gendarme mukk mm-hmm. na sécurité na sécurité bi duun. waaw waaw. na ni gëng. waaw <laughs> na ni. na ni gëng. Mm-hmm. ba ko gis Basiru jaaxeer jomaay jaaxeer fay xam ne kii. non seulement ab njiitum réew la. waaye réew mi mu jiite du réew caaxaan. dëgg la ah oui. Hmm? léeg-léeg ndeysaan non Macky doon na ko fi jéem a def di di dóor jël Air Sénégal dugg ci biir xoolal di nuyoo ñu ne oh ndeysaan président bi ndeysaan. ak simple ak simple ay waay kii daa dagg sax bii avion ndeysaan dugg bëgg rek Air Sénégal dox dara. ay kilo Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dañu koo fal. il doit être mis dans de très sécurité. yow maire a gën a ndaw maire moo gën a ndaw maire mhm. maire moo gën a ndaw maire boo ne ñul met dee wala nga démissionné wallahi état mooy jóg eh, wuy ma mhm. Mhm. ngan di ma eh dañuy organiser élection préfet convoqué tous les conseils ñu commencé waat lépp à zéro conseil voté pour ñu dëggaat beneen maire waaye yow maire rek maire état ci boppam moom mooy jóg en commençant par la présidence la tutelle ministre des collectivités. ministre économie et finance parce que maire bu bees bi ñëw bu doon conseiller la salaire am yëpp day changé appareil yu état ci boobu moom moo jóg. waaye waxoon duma laaj président de la république dama ne. ba suuf damay jaaxeer fay gis nga avion bii ñu naan 60 milliards lañ ko jëndee nañ ko milliards. dañu koo jënd uniquement ndax président de la république. pour yow la sa avion la. dégg nga loolu. <laughs> parce que buy demee ko fi ba. Mhm. comme ni ko fi Macky bàyyee. Macky sax ba muy dem sax yóbbaale na ko waaye dañ te dellusiwaat na. dañ ko koo aal waaw. <laughs> gi daal dellu ndax man séen naa ko ca Amérique te gaw ma ne avion bi lay doxantoo di dem di seeti ay Antonio Guterres. non bu xaritam la. mukk. ma nga ca liggéey ba. non ma kay jël na passage passage piéton bi de laa ko gis muy jékki. waaw jël na fonction. ndeysaan jël na fonction de <laughs> commencé na de. gis nga ko muy jékki. waa gis naa muy jékki. nee na waa ji <laughs> yow noo tudd mu ñu ko waa Njàmbur laa. ah Njàmbur nga. waa Njàmbur ah, Sénégalais ak baax xol. waaw am sañ-sañ démb génn nii lu ko topp noonu ci ay sécurité matul sax diis. Mm-hmm. mu ne ah, waa ngi ci mbeddu Amérique di jéggi di dox. walaay bu tey doon démb boo xam ne lépp dëgg la ba patriote yi saam ko. bi. léegi nag mu ngi ci la vie réelle réelle. Mm-hmm. waaw en tant que voilà simple citoyen doomu aadama. day dox amul sécurité amul. dara walaay moom sax amul protocole amul dara. ma dina amul protocole voilà d'accord ah, professeur ni ñu ne ñu nga nga nga olofal ko. la ma doon laaj internet yi ñoo ko doon laaj. ma ne ginnaaw opération wolofal ko waa ginnaaw opération ñi dem umra ñu ñibbi si man moom loolu moom intéressé na ma trop. yow wax naa la nga daggal ma bee a dem màkk ma xool saytu xool fa ñu fu ñu toll ak lan lañ fay def. Ah, yow tamit démb dañ la dañ la joxoon benn mbir. Euh, ñi nga xamante ni dañoo njotti nii dañoo daw nga woo nga wol leen. waaw man de damaa bëggoon ñu jokkoo kii nu mu tuddati kii Lat Diop. Mm. bëggoon naa ñu woo ko ak yaa xam. sama grand. léegi fu affaire yi waaw mais mujj maa kii réussir ma mission bi <laughs> man kay est-ce que dama mujj démissionné man de dama leen bëggoon a rek. parce que li sénégalais yi ñu seen bopp <laughs> waaw fii moom tribunal la fii moom. Sénégal yépp na leen dañoo daw. Mm-hmm. moo tax ma bëggoon ñu woo leen rek. wax ak sénégalais wax leen li ne. Mm-hmm. dimbali leen dong laa ci mm-hmm. bëggoon de su ko defee ñu daal di dem uh, ci uh, suñu beneen uh, ponk bi ci diwaanop poste nag jamono ji situation bi daal di nay doy waa lu tollu ci deux cent agents la ñu daal di la ñu daal di dàq jamono ji ñu toll nii ban jàngat nga ciy def honorable <laughs> ñun lañ cay wax daal. Hmm. mooy poste de yi ba poste ak yeneen société nationale yi la mm-hmm. njëlum yaa ma neex ji